jëf lu mu baax baax su ko defee te yàlla taxut jubluwut si yàlla rek yàlla nanguwut dafay julli ji ci jumaa julli baax na lool waaye lam ci jublu mooy nit ñi tagg ko kooku yàlla nangulut ko julli ndax seetlu rek laa wax de ma julli waaye julli ga dëppoo ni ko yonent bi jàngalee lu julli bëri bëri yàlla nanguwut tusubaar bu ko defee juróomi rakk ndax sawar yàlla nanguwut bu ko wàññee rek rakk na yàlla nanguwut ndax dëppoo taw ni ko yonent yàlla doon jàngalee rek kon seelut di jublu yàlla rek ci sa jëf da nga def ko ni ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bëggee loolu waral ñi njëkk dugg safara sax mooy ña gën a def lu baax jihaad kat buy xeex ci yoon yàlla ba dee dikkal ko kooku xam nga ne jëfam jëree ni de waaye man xiyaamati yàlla dana ko taxawal laaj ko kattan gi ko joxoon lu ci def mayoon na ko mu di jihaad mu ne daan na jihaad ci yoon yàlla ba dee dikkal ko yàlla ne ko jubluwoo danga bëggoon rek ñu ne diw jàmbaar la waaw wax nañ koo jeex na ay wa ñu dugal sawara de xam nga ne kooku ci toolab xare la de joxe ba kanam waaye yàlla taxut moo tax yàlla nangulul ko de ñaareel ba moo di borom xalal daan joxe guddig bëccëg suba ngoon ñëpp di ko rang ci buntu këram waaw ak bu génnee kam soxla dem ci moom yawmal qiyaamati yàlla dana ko joxoon naa la alal ju bëri loo ci def daan naa joxe waaw góos ak duraat waaw lépp ngir sàkku sa ngërmaande yàlla na ko waxoo dëgg jubluwoom woon da doon joxe pour ñu ne diwa am xalal diwa mën a joxe te tabe wax nañ ko ay wa jël rek dugal sa de xam nga ne kooku lim def lu lu jafe la mooy ndogitu xolam la joxe mu alal alal ne ku ko joxe rek waaw joxe nga loo bëgg mu joxe ko waaye yàlla taxul moo tax yàlla fayit ku de sawara la jëm ndax sellut ñetteel ba moo di borom xam-xam boo xam ne daan na jàngale guddi ak bëccëg suba ngoon waaw sonn lool yowmal xiyaamati yàlla ne ko diw joxoon naa la xam-xam ana loo ci def daan naa ko jàngale daan naa xamal nit ñi yàlla ne ko jubluwoon woon danga ko def rek nga ne ñi ne diwoo mën a jàng wax nañ koy ko aywa duggal sawara de ñett ñi lay sawara njëkk yëg ah te xam nga ne ñett ñi kat kenn du ñoom waaye ba seen jëf ji sellut yàlla dugal na leen sawara rawatina ku dul ñoom rek laa wax de kon lépp loo defal yàlla loolu lépp loo def rek jaamu yàlla ga lum rafet rafet su fekkee eh, sellut yàlla wut maanaam sell gi mooy jublu ci yàlla boo jubluwul yàlla rek yàlla nanguwut su fekkee nag jublu nga ci yàlla waaye dëpp wut ak ni ko yonent bi jàngalee yàlla nanguwut toog rek xalaat dara ba mu rafet rek nga rafetlu ko dugal ko ci diine ji ah, man daa gis naa ne lii rafet na waaw war nañ ko cee mën a boole waa te dëpp wut ni ko yonent bi jàngalee yonent bi andi wu ko alquran andi ko kooku bi daala sawar rek la la jëmee yàlla nanguwut <clears throat> jëf lum rafet rafet daal na dëppoog nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale bu àndut ak njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lum rafet rafet rek sànnil ci miir ba ndax baaxut yàlla xam ne rafet te santaane wut ko kon bu ko ci boole rek laa waxale seela la ngoogu waaye it foo nga teewlu yéene ji de bu moo tax mu ne weex daaru niyet ak teewlu yéene teewlu yéene mooy nga teewlu ne lii ngay def nii waaw jaamu yàlla nga ci jublu julli baax na waaye boo jubloon entraînement taxaw bam neex la nga rukkoo bam neex la siggi bam neex la sujjóot bam neex la fekk jubloo si julli entraînement rek nga ci jublu kooku baaxut gannaaw gu mënoo ko def naafila mënoo ko def farata ndax jubloo ci woon julli de boo jëloon ndox tooyal sa loxo yi galaxndiku kom nu ñuy jàppoo daal nga def ko waaye la ci jublu moo di seddal sa yaram kooku jubluwoo ci jaamu yàlla de lañ ci jublu mooy seddal sa yaram ba njàpp loolu mënoo cee julli ndax teewaloo yéene kuy jaamu yàlla kon jëf jooy jëf rek na teewal yéene ca jublu ci jaamu yàlla te jaamu yàlla gu nga bu ci rax leneen dul yàlla de googu fexeel ba mu dëppoog ni ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi doon defee yii daal boo ko defee daal yaakaaral nañ la mucc danaa wax nag ne sellal moom benn jafe-jafe nekkut ci te bu amut jëf ji du baax jëf nag moom coono bu dul jeex la ku daj coono nag ba pare li nga xam ne benn coono nekkut ci warul la ko yàqal de soo jëfee sonn lool ni ñëpp war nga cee mën a jublu yàlla nag ndax nga mën cee am fay waaye jëf ba pare sonn lool dégg nga ndekal leneen nga ci jublu yow lu amul coono moo la yàqal waaw fay ak li am coono rek laa wax de <coughs> doomu aadama daal boo demee ba jubloo yàlla daal bul def loolooy xelkat loolooy loolooy noflaay borom xel kay loolu lay def boo jubluwul yàlla doo ci am benn fay loo amul benn fay loo sonalee sa bopp nit dafay nekk ci lu koy amal njëriñ boo demee ba jëf rek na yàlla tax xëy dem ci tool ñeen la loo liggéey lu mu bëri bari ah boo si jublu liggéeyal borom tool bi duñ la fay yow nga xëy jël sa bagage dem ca tool ba bay ba ñaq sonn lool ne waaw garab gi laa si jublu garab gi mënul la dara nga wàcci tàllal loxo ñu ne yow duñ la fay ndax yow li nga waxoon moo ne yow garab gaal tax dem ci tool ba kon demal ca garab ga mu fay la loolu du dofam ndof dëgg ngi noonu ba nga xamee ne boo demee ci tool ba liggéey ba sonn duñ la fay ndax garab gi ngay ju moo tax di def te garab gi amut fay xaw ma garab nu muy taxee di def di nit soo lu la tee toog noppalu nelaw rek laa wax de am ci am ci wér-gu-yaram di la doo am fay kon doomu aadama bu jëfee lu jëf ji rafet rafet bu dee mbindeef la si jublu rek moo kuy jëf jublu ci garab ayam mbindeef mënu koo fay dara te sonal na yaramam rek te yàlla du ko fay de kon boo defee li métti lu méttiwut bu mu la ko yàqal li mooy jëf lu méttiwut moo di sellal de yàlla ñu yàlla may sellal nag yàlla rek ko mën may ku ko neex kon sellal ak teewal yi ne fi jëmel amaal ci mboolem jëf yi lay jàngale jëf joo mën a def rek foo mu jublu ci yàlla waaw foo mu dëppoog ni ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale waaye foo nga teewlu sa yéene jublu ci jaamu yàlla de waa wax ji wax ju mën a doon moo xam jàngale moo xam tudd mën a doon na nga ko def te yàlla tax booy zikar la nga jublu nit xam ne yow bu neex rek ngay jàng waaye la nga si jublu mooy nit ñi xam ne diw baatam bu neex la xamul benn njëriñ ca digganteeg sa borom yàlla du la fay ndax jublu woo de wala axwaalu zahira ak mbir yu feeñ yi wala baatin ak yu nëbb yi mboolem yu feeñ yi ak nëbb yëpp soo koy def na nga si jublu sa borom rek la wax de <coughs> dégg kon doomu aadama googu bunt bi li muy jàngale mooy lépp looy def muy lu feeñ ak lu nëbbu ne yàlla tax te na nga ci teewlu yéene boo nelaw di tudd yàlla ci biir nelaw gi waa kooku jubloo ci jaamu yàlla dégg nga loola waral du nekk ak jaamu yàlla de ndax ngay gént rek naan laa ilaaha illallaah waaye nag boo yeewoo tudd yàlla jublu ci jaamu yàlla te yàlla rek tax kooku moo di jaamu yàlla kon su ko defee lim mu bëgg wax foofu mooy bunt bii daf lay jàngal ne na nga sellal teewal si yéene ci mboolem jëf ak wax yi ak sa mbir yi nga nekk muy yu feeñee nëbb yi loolu nag mooy li ngay def na yàlla tax ñu dëppoog ni ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga da nga ci jëf yi jaamu yàlla jamono ba nga koy def boo amee daal yàlla dana ko nangu xaala wax na yàlla taala wana qul waxal inni naka man yonent bi sallallahu alayhi ma naa bu dama yàlla <clears throat> muxlisan daa ji sellal lahu ñeel yàlla diina jaamu ga nañ si tantalal quran yàlla dafa wax yonent ne ko wax leen ne man de li ma yàlla digal mooy ma jaamu ko te sellal ko jaamu gi mooy ba may jaamu yàlla moom rek moo tax de jaamu ma yàlla ngir dugg aljana jaamu ma yàlla ngir mucc ci sawara waaye dama koy jaamu rek ndax buur la bu yelloo jaamu kooku moo di sellal piir waaye jaamu yàlla goo xam ne aljana rek a tax kooku xeet la ci commerce jaamu yàlla goo xam ne mucc ci sawara rek a tax kooku xeet la ci commerce dëgg-dëgg waa ji defaru jaamuwul yàlla waaye boppam lay jaamu waaw ndax xéwalu boppam rek koo tax di def bu dee nag yaa ngi jaamu sa borom ngir ne yàlla yelloo na jaamu moo la ko sant waaye daal bëggaale nga aljana moo ak sawara ak kooku kay baax bëggaale nga aljana bëgg waaye ki gën a sell daal mooy koo xam ne yàlla rek koo tax muy def ci aljana rek tax a def. ñu ngi koy xamee mooy bu fekkoon ne aljana amut kooku du jaamu yàlla moom xalaatul ko waaye bu ragalu doon sawara kooku du jaamu boromam ah kooku moom ci commerce la nekk ki nga xam ni nag aljana ji gën na koo sawarloo ci jaamu ga mu ci sawara gën na koo sawarloo ci jaamu ga waaye bu xamul xoomi dana jaamu boromam kooku moom baax na waaye am na koo gën mooy koo xam ne nii aljana safara xam ak ñàkk am mooyam ci moom moom na muy jaamu yàlla rek noonu lay jaamu yàlla ndax daf ko bëgg daf ko sopp rek waaw ndax turam ndax meloom wu tedd waa ndax xewal gu bëri gi nga xam ne jox defal na ko ko waaw tax na dégg moom sopp na yàlla rek mu koy jaamu ak lu mën a xew rek moom yàlla neex na ko su xamoo xamoo ne tey tey bu dee sawar la jëm keroog guddi googu la dàq jaamu boromam <coughs> waaye kii jaamu aljana nag kooku moom bu ko wóoree sawar la jëm moom mu far basa moom gedd jaamu ya ñaari maqaam yooyu bokkuñ li yàlla wax mooy yonent bi de yaay royukaay jullit ñi wax leen ne man li yàlla digal mooy ma jaamu ko ak lu magg màgg-màgg waaye jaamu gi naa ko si jublu moom rek surtout Umar waqaala wax na taala yàlla fa don jaamu leen allah yàlla <coughs> muxlisina ngeen di way sellal la mu ñeel ko diine jaamu ja wala wu kër yaa di resib na alkaafiru na xéeféer ya na jaamu yàlla <coughs> yéen jullit ñi roy ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa jaamu gi ne yàlla rek tax bu jaamu yàlla ngir aljana bu leen jaamu yàlla ngir ragal sawara jëlee man ngeen a xemam aljana sawara nag waaye jaamu leen ngir jëmmam ji looloo gën <coughs> aljazaaw min jinsil min jinsil amal fay gu nekk rek ci xeeti jëf juróom nit di jëf la doomu aadama lu muy def ñaareel lam ci jublu loolu la ko yàlla fay ah ku bëgg àddina nag lépp looy def moo la tax di def yàlla àddina rek lay fayee ku bëgg àllaaxira waaye nag yaa ngi jaamu sa borom ngir ne xel loo na jaamu moo la waaye daal bëggaale nga àllaaxira yàlla fay la àllaaxira ki nga xam ni moom yàlla rek la bëgg ci jëfam ji kooku moom yàlla boppam la koy fay ah ki neexal aljana nag kooku dàq aljana ki nga xam ne nii aljana lenn la rek ci yërmandeem kooku boo kooku boo labee ci moom waaw ah, da nga gis xéwal ak yërmande goo xam ni moo dàq aljana foofu rek laa wax de kon jaam na def ndax yàlla dafa yelloo ñu jaamu ko loolu daal moo gën te gën a yomb ndax booy jaamu yàlla ngir ne def koo yelloo rek boo texe texe goo xam ne texe goo koo kawe danga nga dugg aljana ci biir aljana da nga dund ci sa borom mooy da ngay dugg aljana fa yàlla rek laa wax de ah googu kay moo gën aljana fa yàlla nag boo bëggee xam ne neexee xool aarif billaahi ci àdduna rek àdduna lu muy naqari naqari boo xamee yàlla rek yow doo nam mu sax aljanaay ndax xéwal gi nga nekkee rek laa wax de <coughs> loo xam nag ci boo duggee aljana di dund xaal boobu kooku nag ki ko xam mooy kuy jaamu yàlla rek te tax yàlla wax na ne bu ngeen dee wala ñu rey leen yërmande yàlla moo gën mboolem li ngeen dajale rek laa wax de kooku mooy ki doon wut aljana bu dee wala ñu rey ko waaw njéggalam yàlla ak yërmandem la mafratu minallaahi wa rahmatun xeyrun mimmaa yajmauna waxaat ne bu ngeen dee wala ñu rey leen la ilallaahi tuxsharuuna ci yàlla leen di pang ñu doon wut yàlla moom buñ dee ci yàlla lañ jëm directeur laa wax de waaw waaye ñu doon wut aljana moom buñ dee aljana la leen yàlla yóbbu wut aljana gi na fekk nga jubluwaale si jaamu sa borom waaye bu aljana rek la nga xam ne tey tey boo xamoon ne doo dugg aljana nga ba jaamu ga ah dëgg-dëgg kooku moom boppam rek lay jaamu <coughs> kon jaamu yàlla jaam war na koo def ngir boromam surtout xaafir di lee féeri bëgguñ ko rek wax de waqaala wax na taala yàlla ma koy mi ne wama umiroo digaluñ leen illaa li yaabudu lu moo ñu jaamu allah yàlla muxlisina ñuy way sellal law ñeel yàlla diina jaamu ga hunafa ñuy way jëng waris bépp diina ju yàqu jàpp ci diinay tawxid mooy diina yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam wa yuqimoo ñu juwal asraatu julli yàlla wa yootoo ñu joxe azakaata asa ko ndax yàlla rek wa zaalik loolu diinul qayima mooy diine ji aji jub rek laa wax de <coughs> kon yàlla jàngal nañu diine ji jub mooy na ngeen julli waaye bu leen jublu ci julli gi dara lu mooy ne waru gar la rek def ngeen ko aljana moom yàlla moo leen koy jox bu ko neexee bu ko neexee mu xañ leen waaye yow aljana yi ñàkk aljana moo ci yem da ngay jaamu sa borom ndax borom bu xelloo jaamu la de dañ ko war a bakk dañ ko war a jaamu dañ ko war a màggal def nga ko yaa ngi joxe asaka ndax lan ndax yàlla santaane ko te lu yàlla santaane dañ ko war a def xaaroo ci benn fay waaw kooku moo di diine ju jub ji waaye yàlla amut lu ko war su fekkoon ne boo jaamu yàlla rek dañ laa war a fayal jana su boobaa dafay mel ni loolu waru gar la ci yàlla bu mënul ñàkk def déedéet moo tax hadis ba ne aljana kenn duggut fa ci jëfam ci yërmande yàlla rek la fa nit duggee ndax la fa nekk ci xewal waaw mënoo koo jëf de yow li ngay jaamu yàlla lu mu bëri bëri bu la ko yàlla fayoon xanaa bis dana ñëw mu jeex taal dina mu xamul jeex da ngay dugg rek da pet bay laa mi dina du jeex kooku xam nga ne yàlla yéen maanaam la jox rek waaye du la la fay moom nag baax baax goo xam ne boo defee ngir moom rek mu fay la nag moo ko moo ko ko moo ko togg moo moo baaxee noonu rek waaye du loo xam ne nii waa yaa def loo xam ni force yàlla a fay déedéet yàlla force waaye nag moom ku def mu fay la du sànq du sànq jëf de mënoon na koo sànq nag waaye du sanq sa jëf de kon jaamul yàlla ngir yàlla <coughs> loolooy diine ju jub boo booy jokk mbokk na ko yàlla santaane rek nga def ko booy joxe ne yàlla santaane nga def ko booy xoor na fekk yàlla ko santaane nga def ko booy xaj màkka na fekk yàlla ko santaane nga def ko de lépp looy def rek defal rek parce que yàlla ko santaane te buur la boo xam ne lu mu ko war a def fay gi nag moom waaw nga bàyyi ko ci loxoom moom moom mooy xam nu mu def soo defee noonu rek da nga mucc wa qaala wax na taala mu koy waxul waxal um <coughs> tux fuu nem na bu ngeen maa fi sudurikum li nekk seeni dënd aw tub duwu ni ngeen feeñal ko wala ngeen feeñal ko yàlla mu dana ko xam laaw yàlla yàlla ne li ngeen nëbb seen dënn yi yàlla xam na ko li ngeen feeñal yàlla xam na ko su ngeen jaamu yàlla te yàlla taxut àddina rek tax yàlla xam na mu fay leen àddina wala mu ba leen ngeen ñàkk su ngeen jaamu yàlla nag ngir ne moom dafa yàlloo jaamu waaw di le bëggaal ngeen ci fay àllaaxira yàlla xam na ko dana leen fay kon doomu aadama lam nëbb ci biiram yàlla xam na ko te dana ko fay rek laa wax de dégg dégg nga wa qaala wax na taala yàlla mu kaw mi ne leen ni naana du amal laa yàlla luxumuha du caageen deret ya walakin li fi ne naalu dana mu xam yàlla taqwa ragal yàlla min kum ci yéen jëf rek maye wut bu doon maye ki jënd gàtt rëy ci tabaski ray ko tuur deret ju bëri dana am yàlla waaye yàlla nee na waaw gàtt yooyu ak deret jooju mayewu dara ci yàlla de waaye day may yàlla daal mooy ragal yàlla gi ragal yàlla booy jëf jublu ci yàlla rek ndax moo la sant nga def looloo di ragal yàlla laaj nag laaj yu jëla seetlu la ki nga xam ne ne aljana rek tax muy def wala ragal sawara nga xam ne tey tey bu ko wóoroon ne ko waaw du dugg aljana du mujj safara moom dafay far gedd ba lépp xam nga ne kooku ragalul yàlla de sawara la ragal aljana la bëgg rek laa de moo tax mu ba ki nga xam ne nag bu du dugg dana xaw a tayal gaa waaye nag dana continuer rek di jaamu boromam waaw kooku nag xam na lu des digganteem ak yàlla yàlla mën na ko yërëm de <coughs> ki nga xam ne yàlla rek ko tax di jaamu nag moom aljana ak sawara yëpp ci yem bu ko xóoroon ne du dugg aljana sawara la jëm ki rek la gën a sawar moom la muy def daal du ci soppeeku mukk yàlla ko tax di def mu ngay def kooku nag mooy jàmm yàlla piir kooku ragal yàlla piir kooku moo mën yàlla wax naa ne ku bëgg àdduna yàlla nee na la koy fay ku bëgg àllaaxira yàlla àllaaxira la koy fay waaye ñiy sant yàlla nag mooy ñi nga xam ne defatuñ ngir àdduna yàlla yàlla yàlla yàlla boppam la leen di fayee <coughs> dégg man kaana yuridu sawaaba al axirati nuuti minha gannaaw mu waxee ku bëgg yoolu sawaaba dunia ku bëgg yoolu àdduna nuuti minha wa man kaana yuridu sawaaba al axira ku bëgg yoolu al axira yàlla nee na nuuti minha danañ ko ko fay waaye nag lu mu ci teg sa na si danañu fay achaakirina ñee sant yàlla ñee sant yàlla mooy ñi nga xam ne àdduna taxul leen def alaxira taxul leen def yàlla rek leen tax a def ñooñu nag yàlla dana leen fay waaw fay gi moo di boppam yàlla dàq fuuf dégg aljana ndax moo neexal aljana de loola waral ba mu jëlee ñooñu aljana dugal leen aljana pour wan leen na leen moo dàq fuuf aljana kon kon wut ngër moo gën daf na leen ma dolli leen ñu ne ko loolu ñu dollil jox nga ñuy xewal gu mu ne ma dolli leen sama ngërmande ba yàlla gërëmee jaami rek ñu gis ne ndek ngërmande yàlla moo dàq foofu xewale aljana bañ mosee bànneexu ngërmaane yàlla gis nañ ne moo dàq foofu xéwale aljana wa ridwaanu minallahi akbar ngërmaane yàlla moo gën a màgg de <coughs> kon booy wut wutal loolu fii def ne lan yenaan allaha du xam yàlla kon yàlla mën nañ koo xam waaye lu ko mën a xam mooy ragal yàlla wutal yàlla moom de moo dàq foofu lépp looy wut aljana mindeef la ni safara mindeef la ni yow malakul mawti mindeef la munkar ak nakir ay mindeef la ñooñ bu ragal ragalal yàlla mi bind rek <coughs> bu leen jublu say jëf jublul yàlla mi bind jublu mindeef daal ñaaw na ak mindeef ba gum lu mu mën doon nag jublu yàlla rek nag kooku moo di ak sellal na ko jéem a jéem ci sa jëf alayhi wa <coughs> daan na julli ba tànk yi néew te yàlla jéggal na ko moom wóor na ko aljanaam leer na waaye taxul mu tayal daan julli ba tànk yi néew ñu laaj ko mu ne afala akun abdan shakuran mu ne ah, du ma nekk jaam buy sant yàlla kon xeetu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi la leen yàlla royoo te yonent bi jaamutoon yàlla ngir dugg aljana ndax wóor na ne dugg na aljana te keroog la gën kon kooku dafa doon jaamu yàlla ndax yàlla yàlla loo na jaamu de laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla nee na am ngeen roy téef bu rafet ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon yéen it xeet wi dee leen jaamu yàlla ndax yàlla dafa méritoo jaamu rek ngir sant ko <coughs> suratul xaj ji la laaya jooju nekk waan omar ibnul xataab jële nañ ci omar doomu xataab radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anu ci moom xaala wax na ne samitu dégg naa rasulallah yonent yàlla bi salla yàlla doolu ko allahu ala ali si moom wa salama doolu ko musal yaqulu muy wax Omar nee na dégg naa yonent bi mu ne innamal a'maalu naka mboolem jëf yi bindi yaate aji tabaxu la ci yéene jëf ju nekk rek am na lu ci borom jublu nit lu mën a def rek am na lu mu ci jublu lam ci jublu nag lu jëf ji rafet rafet loolu rek lay am yàlla buur bu màndu la li nga jublu daal tax laa def loolu lay fay kon mbax nekuti ci jëf ju rafet waye mbax mu ngi ci jëf ju rafet ju ju ju yalla tax jëf ju rafet yo xamna yalla rek tax lolu modi di waye jëf lum sel sel lum rafet rafet bax lum sel sel lum rafet rafet bu ci borom bu ko borom sel lu julur ci yalla yalla nangul man nga gis ku def lu bax lu ne ñepp di tag bu demé du jar dara ci kërëm yalla na yàlla taxutul mu def ko àddina taxoon mu def ko wala leneen rek laa wax de <coughs> kon jëf ju am na yéene bu ci borom yéene way na maari kulli mriim naka ñeel na bépp as ca maa na waalam yéene de innamal amaalu binniyaati mooy lu nit def rek am na lum ci jublu nit ko ànd ak moom lu def rek am na lum ci jublu benn mu jublu ci fo wala mu jublu ci àddina wala mu jublu ci leneen ak leneen wala mu jublu ci yàlla loolu mooy innamal a'maalu binniyaat léegi nag yàlla nee na loolu nga jublu sa jëf loolu laa lay fay waaye innamaa li kulli imri'in naka ñeel na bépp as cam maa nawaa lam yéene <coughs> looloo waral may la yéene yàlla sa moo gën a wóor boo yéene yàlla moom da nga làq ngërmaandeem te boo làqee ngërmaandeem gis ne moo daa xaal jana de te du la tee dugg aljana loolu daal moo gën a wóor daal di jàmm yàlla di si jublu lu taawil yu bëri bëri jublul yàlla rek sa jëf moo gën a wóor jublu mindeef aljana mindeef la ni yow kon bul jublu aljana jublul yàlla <coughs> bul ragal sawara ragalal yàlla mi def moomu ci sawara su boobaa da am sa borom de wa innama li kulli naka ñeel na bépp as maa na waalam yéene ku nekk la nga yéene nga am boo yéene àddina àddinaay sa fay boo jubloo yàlla yàllaay sa fay boo jubloo aljana nag waaye ja yaa ngi jaamu sa borom gaa waaye bëgg nga fay ak aljana nag fay la aljana <coughs> bu li nga bëgg yàlla fayal ko moo di jëmmam jër yàlla fay la boppam rek laa wax de fa man kaanan ku nekk na <clears throat> hijratoo gàddaayam ilallaahi jëm ci yàlla wa rasuuli ak yonantoom fa hijratoo gàddaayam ilallaahi jëm ni ci yàlla wa rasuuli ak yonantoom du gàddaay rek waaye mboolem jëf ju baax rek dugg na ci gàddaay mooy jugee ci kër ak xeefeer dem ci kër julit waaw jugee ci dëkk ak boo mënul jaamu sa borom dem ci dëkk ak jullit goo xam ne da nga fa mën a féex ba jaamu sa borom kooku moo di gàddaay jëf ju rafet la dugalaale na mboolem jëf ju rafet yàlla santaane lépp lu baax loo daal te yàlla tax <clears throat> ak dimbale diina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dana egg ci yàlla ak ci yonent bi de yàlla dana la ko fay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana gërëm yonentu du mooy fay dafay gërëm waaye yàlla moom mooy fay laa wax de su fekkee da ngay ci ak yàlla ak dimbale diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ak sopp yonent bi jëf jooju yonent dana ko gërëm yàlla dana ko fay de <clears throat> jëf ju a doon nag gàddaay ak lu dul gàddaay ci wa man kaanat ka nekk na hijratu gàddaayam li duniyaan ngir àdduna si boo dana ko jot aw <clears throat> imraatin wala jigéen joo xam ne yan kii waa ko tak fay jula too ga daayam na ci li nga xam ne haajara gàddaana ilay jëm ci moom bu dee dafa gàddaay jóge ci dëkkab kéeféer dem ci dëkkab julit ngir am fa dina rek kooku yàlla dina la koy bàyyee ndax àddina ko tax def rek laa wax de bu la yàlla bàyyee ak àddina nag mun laa jox sax boppam ndax loolu ci yàlla joxut doo ko kon bu la yàlla bàyyee àddina daal ah mën nga ko am mën nga mën nga perte <coughs> naka noonu dugalaale na mboolem jëf ju baax joo mën a def ngir am ci intérêt àddina ak lum mën a doon yàlla balaak loolu bu neexee mu jox la ko nag ci yërmandeem bu ko neexee du jox dara na yow taxoo muy def liggéeyloo yàlla alhamdulilah liggéeyloo kon bul xaar fay ci moom naka noonu ku gàddaay jóge ci dëkkab julit dem ci dëkkab kéeféer dara warul ko lu may jigéen jum fa takk rek yàlla ba ko jigéen jooyu mën na koo xam mën na koo ñàkk xam de ci coobare yàlla yàlla mën na koo jox bu neexee yàlla it mu xañ ko ndax moom deful yàlla dara bay xelloo benn fay ci yàlla jigéen jaa taxoon di def na na dem jigéen ja fay ko te jigéen mënul koo fay ndax lu yàlla du sotti sa loxo bi sax yëkkati mu yomb yomb yàllaa ci jàpp naka noonu dugg laal ne mboolem jëf de jëf joo mën a def ngir am jigéen joo takk yow yàlla loolu la lay baaxee mën nga ko xam mën nga koo ñàkk xam de <coughs> kon doomu aadama ngoogu su jëfee ba pare ndem jëf métti na na si jublu yàlla rek su boobaa dana am yàlla waaw dana ci am teraanga it àddina nda yàlla ku ko defal rek mu fay la ci àddina alaaxira te dana la fayit ngir maa dem ëllëg waaw ci aljana soo defee jëf nag ngir àddina rek moom kooku xamul sikk sàkk na perte na lépp looy def lu baax baax bu dee ab intérêt ci intérêt àddina moo la tax di def yow moom perte nga yàlla mën na laa jox àddina suuf kat ci yërmandeem waaye mën na la koo xañ rek laa wax de alaxira mu xamoo fa dara perte rek de sawara nga daal di jëm kuy jëf nag ngir alaxira man nga ko teqale si ñetti anam mu ngi jëf ngir aljana mu ngi jëf ngir ragal sawara bu ko xóoroon dugg na aljana te dégg nga amatul lu mën a yàq loolu rek mën naa am sax moom dootu jaamooti boromam dana biddinti waaw dana teel dana jël xal lu nit ñi dana def lu ne ndax woor na ko ne moom lu mën a defati it aljana rek ah kooku nag jaamul yàlla aljana lay jaamu niru na lu perte rek laa wax de bu fekkee ragal sa waraa tax di jaamu mu wóor ku ne bu bu doon buy dee bu dee sawara la jëm ak lu mu mën a def ah kooku waaw jaamoo tudd yàlla sawara rek lay jaamu rek laa wax de kooku mbiram yi mbiru na lu perte ndax bu dee bu ko wóoree la jëm dootu jaamooti yàlla rek kooku xam ngeen leer na nañu ne defalu yàlla dara <coughs> buy jaamu boromam nag ngir ne borom bu yelloo jaamu la dafa santaane ñu jaamu ko waaye daal moom jaam la bu lot soxla na aljana jaam la bu lotu bëgg naa mu ci sawara ah bu ko ne nag yàlla dana ko dugal aljana dana gën a sawar waaw bu ko xóoree it du dugg ah, daal dana tayal waaye nag du ko tey jaamu boromam kooku jaamu yàlla rek laa wax de amaana yàlla dugal ko aljana musal ko ci sawara ki nga xam ne nag moom moo ci gën mooy koo xam ne yàlla rek ko tax di def bu sawara amul aljana amul woon na muy jaamoo rek lay jaamoo bu ko ne aljana la jëmit na muy lay jaamoo bu ko ne sawara la jëm na muy jaamoo lay jaamoo kooku mooy jaam buy sant yàlla kooku moom yàlla fay boxam la faye dugal ko ci yéen maa nem rek la wax de te yéen maa ne yàlla alquran wax na moo dàq aljana moo ko gën a màgg yow doomu aadama li nga bëggut yàlla bëggut mukk ni bëggut ñu jëflante ko yow nga di ko jëflante moom waaw moo tax mu ne woy jaaloon lillaahi maa ñu ngi jël loo xam ne ñoom sax bëgguñ ko di ko askane yàlla de arab bu ñu doom bu jigéen dañ ko daan suul ndax bëgguñ ko jàllar bi ku nag di askan yàlla doom yu jigéen de laa jooju loo ci déggee mooy li nga bëggul ñu jëflante kook yow yàlla bëggul nga jëflante koog moom de xoolal sa bopp nag su dee yàlla joxoon xal li àddina <clears throat> nit ñëw di defal lu ne ngir xalal ja jam koy jox mu wóor na bis boo ñàkkoon xalal ja wala joxoo ko ci dara dootu la defalati dara bal bu la rombee sax mën na laa ŋaññi kooku xam nga ne waaw da nga naan kii bëggul ma defalul ma dara rek de intérêt rek la ma toppee kooku du la neex boo ko defalee it sax mbaax rek waaye xelloo dara ci yow ndax defalul la dara ngir sa jëmmu sa alal rek a tax muy def bis bu alal ji jeexee mu jàmm kooku gënalu la xelloo dara ci dara it ci yow kuy jaamu yàlla ngir aljana ak sawara noonu la mel nit bu lay defal nag xalal ji tax na mu gën cee sawar gaa waaye bu xalal ji demoo nit dana continuer di la defal di leen niñ ci sawaree ak léegi du bekk du bokk kooku xam na dara ci yow waaw ak cër rek laa wax de nekku cër bi gën nag ki nga xam ni nag moom saalal su demoon ak su fa ci yow lëm lay defal dana continuer di ko def ku koy sab soppe piir rek laa wax de <coughs> yàlla noonu rawaaw nett na hadis bi al buxaari buxaari wa muslim ak muslim waan abi horeyrata jëlee ci abu horeyrata radiallahu yàlla yàlla gërëmaanu ci qaala wax na ne qaala wax na abu hurayrata mu ne yonent bi nee na ñu ngi jànkaan inna laa naka yàlla taala ka wane laa yanzuru du xool ilaa seen jëmm yi yàlla xoolul jëmm ji dafa xeesam dafa ñuul yàlla xoolul jëmm ji dafa réem dafa ndaw yooyu intéresse wul yàlla wala ilaa suwarikum xoolul seen melo yàlla xoolul seen melo yi da dangeen a rafetam ñaaw bët yi dafa réyam dafa sew nopp yi waaw dafa koto moom dafa tàllalu bakkan ba waaw dafa gàttam dafa gudd yëpp intéresse wul yàlla melo yi yàlla xoolu ko bu taaroo ak bu ñaawee yëpp yàlla soxlawul loolu jëmm yàlla xoolu ko am na kàttanam amul kàttan sew na am rëy na loolu yàlla xoolu ko waaye li fi ne yanduru dana xool ilaa qulubikum jëm seen xol yi maanaam la ngeen yéene seen xol yi loolu la yàlla di xool su dee jaam bi lam mooy jamu boromam moo yàlla yit bu ko defee def ko waaye bëggut ko ñu ngi yaakaaral jaam boobu ak texe ndax yàlla ko tax def rek laa wax de te yàlla rek la bëgg waa di léeg-léeg mu rëcc nag jaam bi nag bu dee intérêt rekk rek nekk ci xolam mbiru boppam rek nekk ci kolom na xam ne yellawut dara ci yàlla bu mu fay ci yàlla yàlla nag buur bu baax la rek laa wax de <coughs> mën na laa jox lu ne waaye yellawoo dara ci moom de kon teraanga nekkut ci jëmm nekkut ci melokaan waaye mu ci xol yére yi lum rafet rafet kaala ga taaru taaru dëkk waaye bi taaru taaru yooyu yëpp intérêt suur yàlla yére yi ñaawit dëkk waaye ba ñaawit intérêt suur yàlla nit mbiram mën naa ñaaw fekk tollut fenn yàlla ملوم من نارا فتيت فك طول فين يلا يلا دال قل لا خل برم قل بباخ بسات يلا رك تخمي دف كوغي سوبي بيال وقال وانا نبي انتبه صلى الله عليه وسلم نين لا نك يلا يونتي دنا جوخ الدنيا دنا لمن يحب نيال كم بغ ولمن اك خمن لا يحب يلا بغركم ki yàlla bëgg mooy soppeb yàlla jullit bu koy jaamu mu nar koo aljana ëllëg noonam yàlla nag mooy kéeféer ba rek de yàlla nag nee na mën naa jox àddina koo xam ne bëgg naa ko mën naa jox àddina nit ba pare te ma fenn ku ne mën na ko am wëli yàlla bi mën am àddina yonentu yàlla bi mën am àddina saay saay bi mën am àddina xéeféer bi mën am àddina ndax yàlla def koy maye rek moom ku ko neex la koy jox moo tax àdduna ba àdduna daj wax nañ ne ñeenti nit ñoo ko mos moom ñaar ñi kéeféer lañ ñaar ñi jullit lañ loolu dafay junj yàlla mën naa jox ku ne àdduna de ñaari xéeféer yi waaw moo di buxtu na sar waaw ak namroot ay xéeféer lañ yàlla jox na leen àdduna ñaari jullit ña nag moo di Suleymaan ak Zulqarnayn mu euh, dégg Iskandari ñoom ñaar ay jullit lañ yàlla jox na leen àddina ba àddina daj <coughs> Suleymaan buur la woon taaw yonentu la wax de kon ab julit bu baax mën naa am lu bëri ci àddina waaye ku bon ku tekku dara mën naa am lu ne ci àddina rek laa wax de ku baax nag àddina daf ko yokku mbaax mu jaamu ci boromam waaye ab saay-saay bu bon moom àddina daf ko yokki bakkaar rek waa gën koo bewloo <coughs> gën koo fàttaloo yàlla rek laa wax de waaye walaa yonti du jox al imaan gëm yàlla illa liman yuhibbu lu mooy kum gëm yàlla moom bu lu ko yàlla joxee rek laa bëgg yàlla du jox gëm yàlla kum bëggut kon képp ku gëm yàlla rek ne yàlla am na <coughs> yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na melo yi war ci yàlla xell ci moom nga saxalal ko ko melo yi nga xam ne xellul ci yàlla nga dàqal ko ko yow na nga xam ne yàlla bëgg na la doomu aadama daal boo ko déggee mu ne boo demee àllaaxira nangam ak nangam rek amal yaakaar ci moom ndem gëm na yàlla ne am na gëm na yonent bi gëm na ne àllaaxira am na rek amal yaakaar ci moom ak nu mën a def nag yàlla mën na koo jégal waaye jëf lu baax a gën a wóor de gëm yàlla kon yàlla du ko jox lu may kum bëgg waaye àddina moom yàlla mën na koo jox kum bëgg wala kum bëggut du ko am àddina rek saay saay la wala ku bon la du ko ñàkkit waaw saay saay la wala ku bon la du ko xamit ku baax la de àddina daal du nattukaay bi ku mën na ko am kon buntu baa ngoogu lim lay jàngal moo di sellal sellal mooy li ngay def ne na nga ci jublu yàlla jublu yàlla na amul benn coona fexeel ba bul sonn si jëf ba pare lu amul coono yàqal la ko mooy jublu ci leneen lu dul yàlla moo ko liggéey ba pare ñu ne ko boo jublu borom tool bi duñ la fay mu ne man garab galaas jublu ñoo yëpp ah yaakaar naa dof yaa ko tene jaamu yàlla ni ñëpp de jaamu yàlla def nga ko kër gaa nga ne jaal jana lenn rek mooy tax nga am ko mooy li nga def nii ne yàlla tax nga ne man diw laa sa diw moom la dara bindul la moomul la kooku ndof la ko rek laa wax de kon li ngay def ne yàlla tax te it jëf ji ne dëppoog ni ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi jàngale jëf ju yonent bi jàngalewut santaanewut ko alquran santaanewut ko jëf jooju baaxut di la rafet la nga ko jamono bi nga koy def na nga ci teewlu yéene jaamu yàlla jëf lu baax boo doon def leneen jublu ci leneen wala amoo si benn jubluwaay kooku du jaamu yàlla <coughs> kon loolu moo di sellal na ci jublu jëmm yàlla ji bu la neexee nga bëggaale ci fay aljana mucc ci sawara waaye jëf ngir fay nga rek moom loolu rek rek moo la tax di jëf kooku boo kooku baaxut jaamu mbindeef ni yow la sa bopp rek ngay defal nettali nañ gént benn wali yàlla mu di sirri yi dafa mos tëdd gént di wax ak boromam yàlla ne ko sirri yi bind naa mbindeef yëpp ñëwate ne dañ maa bëgg <coughs> ma bind leen àdduna ñoom ñëpp ñu daw wuti àdduna ba mu des fukkeelu xaaj boo xaajee nit ñi fukki xaaj juróom-ñeent yëpp àdduna la ñuy wut <coughs> moo ñu bëri ci mbindeef yi jaay nañ seen diine ngir am te duñ ci am lu may lu yàlla dogal ci ñoom nag <coughs> mu ne fukkeelu xaaj boobu mu bindee leen aljana ñoom ñëpp ñu daw wuti ko ba mu des fukkeelu xaaj xaaj boobu des boo leen xaajee fukki xaaj juróom-ñeent yëpp aljana moo tax ñuy jaamu seen borom ne fukkee xaaj bi nga xam ne ñoom aljana taxul ñuy jaamu yàlla mosal naa leen lu tuuti ci nattu ñu daw far ba mu des fukkeelu xaaj fukkeelu xaaj boobu ma ne leen wuti leen àdduna wutile daal janaa daw leen ngir natt lu ngeen bëgg ñu ne xam nga liñ bëgg yow lañ bëgg ñooñu ñooy jaamu seen borom rek laa wax de fexeel bu bokk ci ñooñu bu dee bu dee yàlla mos lee nattu nga daw wala nga commencé di nga yàlla ne ah li nga def nii daal moom neexuma bu dee sa xol bi bañ na xol boobu ku ne xam na ne bakkan bi lay jaamu waaye jaamutul borom ndax ba yàlla wuteeg bakkanam xol bi kontaanul bu dee làmmañ baa ko waxit làmmañ boobu bakkan bi lay jaam waaye jaamootul yàlla ndax ba yàlla wuteeg bakkan bi làmmañ bi dafa kontur ne yàlla daal comme nga wutee ngaa sama bakkan mën a ànduma ak yow bu dee jëf yaa jëfit luy luy naqarlu yàlla jëf jooju yàlla taxatul muy def waaw bakkanam a tax muy def day yooyu bakkan a tax ñuy def ndax ba yàlla wuteeg bakkan bi waaw war nañ ko gannaaw ne ko yàlla ñun bakkan lañu ànd ak boo ànd bakkan ñu ànd ak yow boo wuteeg moom ñu wuteeg yow kooku xam nga ne jaamootul yàlla moo tax jaam fekk demul bay muñ natt du jaamam yàlla de moo yàlla indi natt yi pour lan pour feeñalal la nga xam sa bopp yow ndax yàlla la tax di def wala sa bakkan bii moo la tax di def kon xaddis yooyu loolu rek lay jàngale looy def na yàlla tax xaddina nag mu xamal la ne ci loxo yàlla la nekk balaa ngay juddu yàlla dogal na mboolem li nga war am ci wërsëg wërsëg yàlla dafa nëbbu waxtu yi ak jamono yi loola waral mu mel ni dégg nga yëngatu yi ngay def moo la koy may waaye déedéet yàlla pare na ci bu yàgg balaa ngay judd waxtu bu nekk li nga war a am ci wërsëg yàlla dogal na ko te noonu rek lay demee. bu la yàlla ñu loon waxtu wu ne li ngay am koroon nga noppalu waaye muur gim la ko muur loolu rekk la sonal yow doomu aadama bi yonentu nee na sallallahu alayhi wa nit bu doon daw wërsëgëm ni muy dawee dee wërsëgëm dana ko jot ni koy dee di jotee dee yàlla dogal na ko ci jaam bu ne waaye ci waxtoom rek laa wax de bu waxtu ñëwagut bakkan boobu kenn mënu koo rey ba ci moo mooti mënu ci dara waaye bu waxtam jotee nag bakkan boobu kenn mënu ko xaar rek laa wax de ba ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi la mel yàlla pare na ci lam la war a jox yëpp daje woon pour xañ la ko yàlla dana la ko jox waaye lam la xañ yëpp daje pour jox la ko yàlla du ko jox kon nag jékki sa bopp ci loo xam ne nii xam nga ko ba pare kooku kooku ak ak la wala ak seeneen gëpp de wóor na yow li da nga ko am ngay def ngir moom sonal ci sa bopp dog ci mbokk yi ñaawal ci sa der kooku ak seeneen la wala ak ndof waaye sonal sa bopp di wut loo xam ne wóor na la doo ko am kooku it waaw toskareel sa bopp rek la de wërsëg bi ngay wut yow wóor na yàlla dogal na doo ko am dog nga ci mbokk yi rek laa wax de ñaawal nga ci sa jikkoo yàq nga ci sa der wax nga ci lu bon def nga ci jëf yu bon doo ci jot kooku xam nga ne tuskareel sa bopp rek la de loola waral yonentu ne ragal leen yàlla ngeen wut wut bu rafet rek waaye wërsëg moom yàlla pare na ci bakkan du dee lu mooy wërsëgam jeex na ci kaw suuf loolu la hadis bu mujj bi di jàngale ne àddina moom yàlla mën na koo jox ku ne ndax wërsëg la yàlla dogal bu la tax def de du la tee sabablu nag sabablu mayewut waaye yàllaa ko santaane defal ni mel daal moo këll yelwaanu kaay bu taalibi ñoo yem taalibi dana téye boolam di yelwaan kat waaye yaakaarul bool ba waaye ku ko defal ci bool ba la yaakaar dégg nga yow lépp loo xëy def ko rek def ko waaye bul yaakaar ne loolu moo lay may yàlla mi nga xam ne moo lay fekk si jëf defal la kooku nga yaakaar sabab lul ndax yàlla lum nar a bëril rek day bëril sabab yu koy waral ba nga xamee ne nar naa bëril dee lay waral dee dafa bari feebar dee poson dee paaka mën na rey nit daanu sax mën na koo rey oto mën na koo rey li mën a rey doomu aadama kenn xamu nu mu moo tax saa su nekk nit ñaa ngi dee feebar yi rey it kenn xamu nu mu kon yàlla bu naree bëril dara ñaareel dafay bëri sabab ya waaye sabab yi reye wuñ de feebar bi nit ki feebar dee keneen feebar na ko wér taamaana ki wér sax moo gën a néewalal gën a néew toppatoo ki dee kon mbiri ci loxo yàlla la nekk ah yow buñ la gisee nga tayal nangoo liggéey nangoo jaamu sa borom ngir ne yàlla pare na ci wërsëg daal yow doo def dara yàlla pare na ci aljana safara doo def ah dana niru ne yàlla lim dogaloon ceew mooy ñàkk waaye man danaa jox rek laa wax de ndax bëri na ku xëy defut dara yàlla xëy xëy rek ubbil ko bunti wërsëg li ëpp nag ci njub la la koy jëlee kon sabab lul waaye bul yaakaar sabab luy de yaakaaral yàlla fekk ci la jox la sa xelit na dal ndax wërsëg moom yàlla pare na ci séddale na ko ba pare li nga war a am daal ngay am nga def lu baax loolu ngay am nga def lu bon loolu ngay am jeex na bul naw nit ñi ngi teg àddina ndax yàlla dana ko jox ku mu bëggut bul xeeb nit ndax yàlla dana ko xañ ku bëgg de yonent bi jàngal nañu hadis yu mel noonu ne bëri na ku pënd bunt bu mu dem ñu puus ko kenn du ko entré te lu mu wax yàlla def lu mu rek yàlla dana ko def kooku bu doogoon alal muy ëpp alal waaye soxla wut ko de buntu bu mu dem bu fëggee buñ ko bilé naan ko demal bu dé sëriñ bi lay sëriñ ñu ko dafa japp kilifa gi lay sëriñ ñu ko dafa ndam mel kanam bu ñaaw té lu mu wax kan yalla def ci xur na pënd na yalla la waye ñuntu jang nañu ci hadis bu lay wone affaire neeku ci ci xur ak pënd rek de dé nga affaire ci gor gor lu nekk ak jaamu yalla mu ne bari na ko xam mu ngi ci tukki lool. pënd lool tumuranke lool tàllal loxo ya naan yàlla may ma yàlla may ma yàlla nee na nu mu koy mayee nan laa koy nangule ñaan te lu muy lekk dafa xaraam li muy naan dafa xaraam yére mi dafa xaraam de ci lu xaraam sax lañ ko dundalee kooku du ma ko nangul ñaan kooku cuxur na pënd na te noona ba yàlla la kon nit mën naa cuxur pënd soppe ba yàlla la nit mën naa cuxur pënd noona ba yàlla la de nit mën naa am ju bëri noonu bi yàlla la comme Namrud <clears throat> moomoon na ak Xaaroon amoon na alal ju bëri waaw waaye noonu bi yàlla de nit mën naa alal ju bëri fekk soppe bi yàlla la comme yonent Suleymaan buur la woon waaw nguuram ba léegi amatul ku mel ku am nguur gu mel noonu waaw tàgg yàlla tàggatoroon na ko jinne yi bu daan génn rek pitax yi dañ ko daan waaw tàggal waaw tàntal ko ngir bañ eh, waaw eh, naaj wi ko lakk de nguur gu mel noonu amatul ci kaw suuf kooku yonentu la woon soppeeku yàlla taamoon na de kon nit mën naa am baax mën naa am bon nit mën naa ñàkk baax rek mën naa ñàkk bon waaye nattukaay ba dëgg-dëgg si soppe yàlla yi moom mu ngi ci gëm yàlla gëm yàlla moom ku ko def rek kooku yàlla bëgg na ko de in uridu al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi wa rahmatullahi